abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa yu wér te ci réew mi ci bitim Merci monsieur le président ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di nuyu monsieur le ministre ak ses collaborateurs di nuyu suñu mbokk député yi di wax ne rek monsieur le ministre projet de loi numéro 5 2023 bi portant sur le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du BTP et des travaux publics dama jàpp ne ni ñu ko rafetloo woon ca commission ba noonu lañ koy rafetloo ci plénière bi indi nga ko commission député yi jël kàddu yépp rafetlu ko parce que njëriñu askan wi la looloo tax bi ñu koy voté yaakaar naa ne ñu ci bëri mën nañoo seede on l'a voté à l'unanimité donc loolu jàpp naa ne loolu mooy amaat fii ci plénière bi monsieur le ministre damay lay wax rek ne am na yenn kàddu yoo xam ne comme ni ko honorable député waxee bi ma wutu fii waxee loolu laa koy wax dañ ciy jégalu mais député mbedd kenn du déglu kàddum nañuy déglu kàddu député du peuple parce que yenn kàddu yi ku ko ñëwee yëkkati fii di ko wax respecté woo sénégalais yi ngay waxal mais respecté woo assemblée nationale bi nga nekk nii mais nag comme li ma waxoon rek am na doomu aadama yoo xam ne nii fu ñu génnee seen kër seen jikkoo dina leen topp ba fa ñu nekk su respecté woon nit ñi su waxee ñi ni déglu ko day toog nit ñi wax mu déglu leen mais bi assemblée bi taxawee ba léegi saa bu waxee rek daw na génn parce que li muy wax xam ne ne waxul ko pour njëriñu askan wi mais day wax pour saboter mais nag ñi koy wax ne ñun lépp lu ñuy wax fii dañuy wax parce que sénégalais yi ñoo ñu fal li ñuy wax dafay amal njëriñ sénégalais yi monsieur le ministre may gërëm président Macky ak yow mi nga xam ne ni moom la dénk ministère bi ci la route Mbirkilaan Maabo vraiment ñi ngi la koy fàttaliwaat xam nañ ne yéen a ngi ci bu baax ndaxte jamono yi yàggul dara entreprise bi nga xam ne ni tey moo ko war a defar ñëw na ci terrain bi pour def reconnaissance de site loolu vraiment ñi ngi ci gërëm waaye di fàttaliwaat ndaxte nawet baa ngi ñëw ñu gën ci baral liggéey bi di wax ne aussi di gërëm bu baax le prolongement de la route Touba Kaffrine ñu jàllale ko ba daaru wanaar mu interconnecté ko ci la route Mabo mu jëm ba Poroxaan loolu vraiment lu am solo la ñu ngi la ciy remercier bu baax waaye di la fàttaliwaat bu baax it axe bu ndaw boo xam ne nii ci plénière yi waxoon naa la ko muy diggante route nationale bi ak xabru Mam Astu Waalo bi nga xam ne nii dañu koy utiliser lu bare bare bare bari te guddul un kilomètre cinq cent rek ñu ngi lay fàttaliwaat lool di la ko dénk nga jàppalañ ci bu baax a baax waaye di la talalaat loxo la route Touba Mbella Gniby nga xam ne it moom it dañ koy utiliser bu baax a baax di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di wax ne président Macky Sall en matière d'infrastructure yaakaar naa ne amul kenn ku mën a diingat kii wax nii léegi buy dem Casamance ci pont bi lay jaar dem euh, dem Casamance pont boobu yaakaar naa ne dund na ay ati at te mosu koo gis mais nag nit soo xamee ne ab dëkk comme ni ko ñëpp waxee amoo fa nijaay ju lay yedd amoo fa maam ju lay yedd lu la neex wax kooku ay waxam kenn du ko déglu waxul lu amal njëriñ Sénégal li ko li taxoon ñu dugal ko ci assemblée nationale bi mu ngi bu baax a baax a baax parce que moom dañ ko fiy dugal pour muy wax waxu daanu ci saret bu leen ko yedd looloo ko fi tax a nekk loolu lay continuer di def kenn mënu ko tax a bàyyi donc kon kooku ay waxam ñun duñu ko déglu population bi dégluwuñ ko mosu fee ñëw ne ñi ko fal Casamance nañ fi def nangam Casamance nañ leen defal benn route du wax loolu mukk waxu daa ku daanu ci sareet lay wax kooku waxam amul njëriñ bu ñu ko kenn déglu kon ñu lay sant monsieur le ministre di la gërëm bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla gën la jàppale wasalaam jërëjëf merci cher collègue la parole est à notre collègue Ismaïla Diallo Idrissa Baldé le suivant